Elage jàmm ci xibaar yi nga kay bi di xamal ne ndax yemul foofee réewum Sénégal daal jamono ji lépp loo xam ne nag jëm na ci accident yi ma ngay gën di ñaay Kébémer am na ñaari accident yoo xam ne am na fa waaye tamit fi nga xam ne nag moo di usu yi am na lu toll ci juróom benn ñoo xam ne naka moo di 24 yi nga xam moo di RFI yéen kaay moom daal jamono ci yeyul yàb bi jëmati képp loo xam ne jëm na ci fànn ndax gannaaw bi ñu ko seetee fi nga xam ne

ñoom dinañu daje fi nga xam ne nag moo di Masaalikul Jinaan te bu ñu koy ubbi Le Quotidien di xamal ne moom kay la muy xam ne moo di Ousmane Sonko mii nga xam ne daal day ji ñaata sàcc waaw naan Mamour Diallo mbirum 94 yi di ko ci gi

kaay bi defab gëstu ci lépp loo xam ne nag jëm na ci nganale yi nga xam ne day day am ci réewum Sénégal muy ñi nga xam ne daal dañoo demoon màkk bay doog a ñëw dañu léegi kay jamono ji li ci am mooy yebbi dëgg maanaam yebbi yi nga xam ne moom la doon def ci xew yi léegi nag loolu la def ci nganalay màkk yi